tiit ak mbetteel ak rusté liko waral moy ministre de la république du Sénégal la yaakaaroon moy mooy fi mais tel n'est pas le cas liñ fi gis moy ministre à pair. liñ fi gis moy ku ñëw seet ay militants loolu lañ fi gis maintenant commune bu Touba Fall ñofi nek commune bu Dalanga bu ñofi nek commune bu Missirah ñofi nek commune bu Ngay ñofi nek ak ben asso benn structure wala ben kuréel bo xamni quoi fait ne lu ëpp 30 associations ci biir Touba Mbacké le ministre l'a dit lui-même néna na plus de millions yi bari tuur nañ ko fii tey ji pour organisation dara jaaru fi ñu bëgg xam nag mooy bu fekkee dañu bëggul Sénégal nañu ko wax bu fekkee dañu tuddee waa àll bi nañu ko wax bu fekkee dañu si dañoo amul benn baat aussi biir nañu ko wax démb ba tey ñu ngi xeex xeex bi pour wane ne ñun Sénégal moo ñu ñor pour wane ne kenn mënu tudd jeunesse di tudd arrondissement Ndam te tuddoo Touba Fall te tuddoo Ngay te tuddoo Misra te yoo xam ne benn structure moo leen a projet ay nax la

li ministre wax tamit ne ñëw na fii ne di recevoir recevoir benn sën ay milit lay lay recevoir ñun on a exigé fi ñu ko teg fi ñu ko teg mooy dañoo gis ñun ay jeunes lañ Beaucoup de mouvements présidentielle parce que structure jeunesse politique est intéressée. l'Allemagne sommes ñu intéressé suñu gox intéressé nous sommes fiers d'être à Nous Nous audience auprès du président auprès du ministre Nous demandons demandé audience nous refusé catégoriquement que nous jël loolu tax Nous devons jël Nous APR duñu chocolat Nous avons tax ñun le conseil local de la jeunesse Touba conseil local de la jeunesse Touba amul ay magat juróom-ñaar fukki ñoo fi ci lam posam fekk ci potu ñuulal dañuy ñuulal seen bu maintenant li ñu wuluma li wër moy li xam moy ay jeune ñoo fi yu engagé wu déterminé wu xam fi gox am tamit Sénégal le le président de la République le président de la République, kon. lan de la République, le président un ministre de la République bu président de la déclaration de fausse déclaration à travers la presse président c'est totalement faux. République, le président de la mobiliser propre moyen suñu nit. la ci base bi de moo tax fu dem ñu dàq ñu mais du tere dinañ yëkkati suñu kàddu ba xamal Sénégal ne leen ñun Sénégal moo ñu ñor Touba Fall moo ñu ñor Ngay moo ñu ñor Missirah moo ñu ñor Touba moo ñu ñor ak l'ensemble des yoo xam ne ñun ñoo bokk initiative